jëf mbokk yéen ñi ñuy teewlu ci Sénégal seet euh, jaa jëf ku ci nekk nuyu na leen ci sa tur sa sant bisimila ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké comme niñ koy defee ak yéen nag saa su dara xewee tey jii nag xam ngeen ne la ñuy màggal euh, li nga xamante ne nii moom mooy euh, Kazu Rajab màggal goo xamante ne nii ku baax lool sax di Serigne fàllu moo ko tax a jóg waaye nag képp ku bokk ci yoon wi rek. Ah, màggal gi fu na ngay jógee ci réew mi wala ci àdduna ñëw ngir teewe lii di màggal gi moo tax mënuñu ko def te duñu daal di dem seeti ñii di ay setu borom Touba eh, ngir lan dékk leen suñu micro ñoom tamit ñu wax ci màggal gi ah, eh, wax ñu itam naka lañu koy màggalee ak itam ñoom lañ ci xam moo tax tey ji kenn ci ñoom lañu doxantu fekk si ko ci këram Euh, suñu sëriñ la nag waaye ngeen xam ko ak casquette yi casquette yi bëri na mais bii la yoon mhm. moom comme que ñu ngi ci màggal gi moo tax foofee la ñu yem sëriñ Modou Mbacke Baara Dolli nekk nag euh, koo xamante ne nii duma leen ko présenté benn yoon waaye kenn la ci sët ci sëtu sëriñ tuubaay yi sëriñ bi Mbacke Baal la ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw biñ jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba sudu sëriñ ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool ci wér ñi ngi lay wax waaleykum salaam eh, wa rahmatullahi yaag ñi nga àndal ñëpp eh, ak kilifa ga ngeen jege muy Pape eh, Alé Niang di sama xarit mm-hmm. Euh, Pape Alé Ndiaye di sama xarit. Mm-hmm. Euh, fii di doon seen kër ngeen yàgg fee ñëw. waaw waaw ñu ngi leen di dalal bu baax a baax. jërëjëf mm-hmm. jërëjëf en tout cas mbégte la ñuy am saa ne bu ñu ñëwee fii nii toog ak moom mu ubbil ñooy buntam ñu ñëw ngir waxtaan ak moom waaye tey jii nag euh, sëñ bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi màggal màggal gu mag kasu rajab mu bëri lool luñ ci mën a wax mais yow comme ni ma ko waxee léegi rek ab kër moom boo ciy dugg. faaw nga jaar ci bunt yéen mënuñoo laaj kenn euh, tëb leen moo tax ci yow lañ koy njëkke ana lan nga ñu mën a dénk ci màggal waaw màggal gi bis la weer la boo xam ne weer bu tedd la muy wax nga ku lekk sori ñëpp di weer woo xam ne weer bu màgg la ci lislaam mhm. euh, waaye dajeeg suñ jàmbaar ja euh, Cheikh Mouhamadou Fadil gañe ci àdduna mhm. fii ci Daaru Salaam mhm. doon nit koo xam ne nii Euh, ku suñ borom mayoon la mm-hmm. waaye doon nit koo xam ne it euh, taxawoon na teg ci loxoom bu tedd bi na may sëñ Tuubaa mm-hmm. taxawoon na teg ci loxoom dënnam bu tedd bi it na maay Sénégal mm-hmm. kon nit la woon koo xam ne euh, booy wër lépp dafa daje woon ci moom bi ko gënaloon am solo nag mooy ñëpp xam na ne moo njëkk a jaay ak njureelam jënde ko wàllu taalibe ñëpp xamoon na ne bi mu fi nekkee xàmmewul tariixa bi xàmmewul tariixa beneen ñëpp xam ne yoon ñi nga xam ne sax bokku ñoom diine Ah, ku ci masa daw it fii nga jëm si mm-hmm. kon nit la woon koo xam ne ku ubbiku woon la waaye mm-hmm. nit la woon koo xam ne ku yaatal la nit la woon koo xam ne it ab liggéeyam te saari na fépp mm-hmm. nit la koo xam ne it li nga xam ne moom la ku tedd ki batale woon ah, muy jumaa ju tedd ji di liggéeyam bi ah, ñëpp xam nañ ne bi ko Cheikh Mouhamadou Moustapha tàmbalee mooy ki ko eggale ñëpp xam nañ ne heure bu jamono mosa tolloo fii réew mi toll ñëpp daanañ xam ne daan yëkkati kàddoom ñëpp xam position mi nam ci daan jëlee ay engagement hmm. waaye nit la koo xam ne dañ koo war a roy ci ak taalibe hmm. ñun nag yàlla dogal lu bari boole ñu ak ñu moom ndax euh, nit moom euh, boo demee ba nga xam ne euh, sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul hmm. wàññiku na waxuma li nga xam ne moom lañ bokk mook sëñ Abdou Dia diggante wàllu mag ak rak bokkut bokkuwaat sëñ Tuubaa ci mbokk waaye la leen boole muy xaritoo ak boole gu leen sëñ Tuubaa boole woon ndax ñëpp xam nañ ne Euh, li may wax rek sëñ Tuubaa euh, boole woon nañ leen euh, ci li ñu daan waxee ndabul góor li mhm. ndabal góor li nag boo ko gisee day mel ne ñun dajale di xaajali ñi wala déedéet mhm. day boobu jamono dafa naqari mhm. ci ñoom ñuy liggéey ak sëñ tubaa di ko liggéeyal liggéey gën doon liggéeyal sëñ Tuubaa ca jamono naqari la ñu teg ci bool ba kenn ku ci ne ci juróom ñett ñooñu ku ne da koy bëgg a bàyyee moromam kenn ku ne bu laale bëgg a bàyyee moromam kon loolu seenu ngor ak seenu gëm-gëm ak seeni pas-pas sëñ Tuubaa boole leewoon sëñ Abdu sëñ Fàllu bokk ci ñooñee ci sëñ bi jëm meññuñu mm-hmm. beneen bi ci desit sëñ Touba xëy na ci Ceyeen euh, takkalu am néeg def fa ñaari lal ci benn bis mm-hmm. benn lal bi mu boole ci ak sëñ Modou Moustapha beneen lal bi sëñ euh, ak sëñ moo soxna beneen lal bi mu boole kook sama maam sëñ Abdou Dia ak sëñ Fallou ñu def juróom ñaari weer ci benn néeg hmm. mu sëñ lu ñu bokk ci benn lal bu ñuy tëdd kenn ku ne bindal ko juróom ñaari kaamil hmm. ñu boole ko muy vingt-huit kaamil moom la sëñ Touba léemoo Touba gi hmm. kon ku mel noonu boole gi yàgg na kon bis bi dañ ci am ab cër sama maam waññi ko waat yëkkati sëriñ Baare bi ñu bisiwaatee te jamono yooyu ban tëddee ba guddee ko gént naa biig eh, jamono dem ba nekk ci sa loxo nga koy atte keroog bu Seex Mouhamadou Moustapha wàcceeb liggéey keroog ba mu ñëwee fekk jamono yooyu mag ñi leen daan wax mu ne ko bu boobaa façon naaru góor laa lay may hmm. keroog bi ko sëñ Abdou Dia fekk di ko eh, ci biir këram ngi ci géej gi dana ko naaru góor waa nii di yeewu ci géej gi hmm. tey jamono jaa nii ci sama loxo hmm. kon loolu diggante Cheikh du Fadel la ak sun maam waaye nag sun maam waññi ko waat yëkkati sun waajur ak sëñ Alaaji Mbakke jox ko sëñ Abdou ja booleel na sëñ Ousmane Bousso sëñ sëñ Baara bi sama waajur tey sëñ Fallou jël ko yóbbu ko nay lu maraab nay lu maraan goowee mu leen mu ko yóbbu ne leen buñ demee bu mu jaxasoog doog yi néeg bu ma fa defal hmm. ma fay nekk bu ma ñëwee na fay nekk bu xëyee liggéey ànd ak nekk na fa ñaari at hmm. ab loxo moo ko fa jëlee keroog bi nga xamee ne màggalu Tuubaa ñëw na euh, jawlin ya fa nekkoon ñëw mu ne leen waaw ana baara ñu ne ko ah moom nee na amut sa ndigal pour jege ci dëkk ba euh, mu waaye nag loxo bu métti daal na ko ba kenn xamut xamutu nu muy def hmm. mu ne na ko oto bi dem jëli ci boo ko oto bi ñëwee mu ñëw xool loxo bi hmm. kenn ku ne xam ne sëñ baara bu xoolee loxo yi da nga gis mandarga maa ngi des na ba tey hmm. moom ci jëmmi boppam mu dagg yéen ko takkaloon na ko loxo bàyyil baara ba léegi si sëñ baara loxoom sax mu suta dagg ci ci ci paaka hmm. kon kooku am na fu mu jaar ak suñu waajur mu boole kook sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Modou Bousso Dieng tudd ma tuddee ma boppam di taawam tey jii doomam nekk ci biir kër gi ay sët sëñ fallu nekk sama kër ma am ay turandoo it sëñ Fallou kon li ñu boolee bari na ci waxuma mm. ci mbokk waaye ci jaxasoo kon bis biit ñu am ci cër boo xam ne cër bu màgg la mm. boo xam ne it bu mën a wax fépp la di ko mm. màggal comme ni ko ñëpp di màggalee wàcce luy kaamil jàngkat yi xasaayit yaa ngi nii kenn ku ci nekk tamit yaa ngi eh, eh, def yëkkati say xasaayit eh, ca na nga ko mënee di sàkku it ñu continuer ñaanal ci daa nooru daare ni ba nga xam ne it ñun li ñuy liggéey sëñ Tuubaa mu doon liggéey boo xam ne lun mën a def ak boo ñu mën a gis bu ne danañ ci dégg ex ba de des Hmm. kon casquette boobu duñ ko yemaleeg dara hmm. na xam nañ kin doon xam nañ fi ñu bokk xam nañ liñ doon ca nit ki moom boo demee ba am cër boobu ci sëñ tubaa sa maam bokk la mu doon sëñ tubaa sëñ tubaa taxaw ci njaarim na xuma ku ma jurul waaye jëmu jee di dem maa ko jur hmm. jamono yooyu it sa maam bokk ci ñi njëkk am oto ci yoonu murit waaye oto ba ba mu ko yoree ay matt la ko daan taxee di ko sëñ tubaa ci njaarim ah mu sañculoo ko ab dëkk 1912 ah kër yii wuuf jumaa ji boo demee da nga fekk sama maam wuuf jumaa yi tubaa comme ni ko doomi sëñ Tuubaa yuufee kon man xam naa fi ma bokk xam naa li ma booleeg sañ Fallou kon moo tax bis bi it ma koy màggal ci ay bernde ak i ak di teral doomi aadama yi waaye nag ñun ñëpp war na doo mën a roy ci Cheikh Mamadou Fadal ci taali bi gi nga xam ne jaayoon ak njuréem jëndee ko taali bi ndax yoon wii kat ci taali bi képp ci leen mën a amee lépp lu ci nit am rek ci taali bi la ko am ci sunu maam yi laq nañ ngërëmu sëñ Tuubaa xam nañ ko bu hmm. kon nag lu bis la boo xam ne bis bu sell la waaye bis la boo xam ne bisu royukaay la ndax moo Cheikh Mouhamadou Fadal ñëpp xam na ne euh, lim meloon ci diine ji ñëpp xam na ne it nim meloon ci réew mi hmm. amutoon benn tariixa hmm. ñi nga xam ne sax euh, ay chrétien lan da leen wuufoon ah, wuuf boo xam ne euh, da dayo bi foo ko takk weesu na ko mboolem tariixa it da leen ay jëloon wuuf leen ndax moom li mu doon wax maay Sénégal waaye it fii bu àdduna masaa toll it daana yëkkati kàddoom ñëpp xam nañ fa jaar ak Senghor ñëpp xam nañ tamit position ba mu ci jëloon ca la ko waraloon mooy gëm gum ba gëmoon sëñ Tuubaa ndax man de kenn netti lu ma sama turóom ndoom moo ma netti li hmm. fii ci xaayar ma ñëw boobu yëngatu bi ci wàlla kasket beneen bi mu ne ma dafa am lu ma lay nettali diggante Sëriñ Fallu hmm. ak ki fi yoroon réew mi ci jamono yooyu mu sengoon hmm. dafa xëy benn bis ñoom ñu war a ñëw war a def fi campagne mu ne leen ah dajale mag ñi ne leen dama saxaar fii daal ku fi ñëw ku ne boo tuddee borom baraag bi yaay ki yor réew mi ñu ne ko ah, bi loolu de yéeme na lool ndax kenn ki jullit li keneen ki chrétien la mu ne ko waaye ku ku ku ku ci tudduwaay waay ku ci tudd wax. Mhm. Euh, bi nga xamee ne du jee ñëw na. Euh, yàlla dogal bi mu ñëwee ba egsi mu dalal ko ci benn néeg. Mhm. bi mu ko dalalee ci néeg bi mu ko dalal ne nan natt li nga koy teralee ak di ko teraanga lépp ñu natt ko. Mhm. mu teral ko teraanga def lu ne mu defal ko bi julli jotee mu dem julli ji ajuma ñëwaat bi mu ñëwee sëñ Modou moo ma wax kenn nettali ma. ma mu yëkkati fanweeri junni teg ko ci sama loxo na ko boo demee nee ko fukki junni yi. mu jàppale mu jox ko ñim àndal ñaar fukki junni yi ci jamono jooju ca jamono jooju laa wax mm. ñaar fukki junni yi mu dimbali koo ko ci loolu muy def muy campagne bi mm. ne Mamadou dafa jël lépp lem na gaa yi danaa leen jox sowaan daan ko dañ dem ci sëñ bi mu ñaanal bi mu ñëwee mu ne ko waaw abdulillah ci réew mi dama koo soxla nangam ak nangam wax ba eggal waaye tudd sëñ waa mm. dafa génn rek mu ne du ko waay du ko waay du ko du ko <laughs> mu ñu wàññi ko ne ko ah kon sëñ bi ku fi des chrétien bee fi des kon chrétien bi moom du tudd sëñ Tuubaa <laughs> ndax moo fi des mu ne ko xam ma ku fi de mën a des de waaye du du kii moom euh, ba bis ba dellu see Senghor ñëw ñu war a julli ji mu bàyyi nit ñi ñu dem julli ji mu toog bi ñu toogee ba julli ji ba ñëw sëñ Modou moom wax ma dégg mm-hmm. mu woo ma ba mu ñëwaat mu ne mu jëlal fanweeri junni yi boo demee ca bari bañ koy ganalit lam ganale kee la ne bu ci kenn nan toll ci xar yi nu mu toll nu ceeb bi nu mu toll lépp ñu natt ko mm-hmm. bi nga xamee ne yàlla dogal na waxtu wa jot na it mu ne ko jëlal fanweeri junni yi nga dem jox ko gan gi nee ko ñaar fukki junni yi mu dimbali ci essence bi ci campagne bi fukki junni yi ñim àndal mhm. ne bi mu egsee jox ko ko Senghor dane gars yi maa leen di jox teraanga ji leen sëñ bi jox waaye dama bëgg ngeen may ma lii ma boole ko sëñ Modou kaay ñu dem ñu ànd nga gunge ma ci góor gi daan neen man ngeen maa xaar dégg naa ñu daal di jiitle ñëw fekk sëñ bi fi mu toog muy sëñ Fallou mu daal di ko baa ngan gi nangam tubaarkaal mu ne ko sant nan bu baax mhm. waaye daal di lemaat fanweeri junni yi nam ko joxee woon daan ko góor gi lii ma nga ma jox trang la mënu ma koo ñàkk bañ a téye mhm. waaye dama koy jëlaat mhm. ñaan la nga defal ma ko ci liggéey bi ngeen di liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. réew mi bu fekkee bu ma ci jotee lu ma leen jàppalee seen sëñ Tuubaa mi yàlla bu ma ko jot dégg naa Senghor bi mu génnee rek dana mag moom la moom la moom la moom la moom la waaye moom la kon loolu jaar na ci am kenn ci doomi sëriñ tubaay yi te doomi Serigne Touba kenn ku nekk sax may may mhm. kooka mhm. mën naa tudd tur waaye mhm. comme bisub sëñ Fallou la ndax kooku ku ñàkkoon i caaxaan lu gëmul sëñ Touba la waaye yàlla may na ko may goo xam ne cig mayam nee na bu ma ko piisee rek ma eh, du falu hmm? eh, sëñ sëñ bi dégg loolu xam nga doomi sëñ Touba moom bu jëreen do ka ca xali mag bu joxee ndigal moom amatul la keneen koy def eh, ba mu ko déggee moo waroon mu jël rajo bi naa bu bu ko kenn piis waaye bu ko kenn ne ko ñëpp na jàkk loola daa dee daa dee faat ndax ndigal la jëg na kon pour mu mën cee jàngee lu bare bare bari sëñ Fàllu nit la woon koo xam ne it euh, ku daan jàppale jaam yi la waaye nit la woon koo xam ne it ku daan taxawu réew mi la bu tollee fi mu toll waaye nit la woon it ku gëm sëñ Tuubaa ba ku mën a àndal ak yow moo njëkk jaay ak njuréem jënee ko euh, ak taalibi kon loolu hmm. it ak mandarga la yërmaaneem it foo ko takk wees na ko hmm. ndax ñu bari sax bu buñ daan jël bagage duwaañ yi bëgg koo nangu hmm. da nga naan sëñ Fallou ma yónni te bu ci bu ci jotee daana mën a waay mën a waay mën a waay kon loolu yërmaane ju mu amoon ci mindaafon yi la waaye it bëgg goo xam ne it bëggoon na ko sëñ Tuubaa ba lépp lu tuddee sëñ Tuubaa mën nga koo naxee ndax waxtu wu nekk nit ñi dañ ko daan nax ci loolu waaye nag moom jàpp ne ne sëñ Tuubaa lu ko ci nit di naxee jar na ko luñ ko luñ nax <laughs> jar na ko mais mais ci loolu moo tax li nga wax ci Serigne Fallou defe naa ne bu ñu fi toogee sax di wax du ñu fi jóge mhm. euh, lu tuuti la ci li lim lim yor ci lim lim lim def ci àdduna mhm. mais bëggoon nañoo xam itam comme que àdduna mhm. ñu ngi ci jamono joo xamante ne ni fii ci réew bu Sénégal xaw na jaxasoo moo tax ndaw ñi génération bii ñu nekk wala bii ñëw lan lañu mën a jàngee ci ki nga xamante ne ni moom mooy borom bés bi waaw xam nga liñ ci war a mën a jàngee bari na lool. Mhm. na ndaw ñi. ndaw ñi mhm. ci jamono ji ñu toll. waaw war a gën a war wormaal mag ñi. surtout ndax képp koo xam ne nii mag nga la ko def mag. Mhm. yàllaa ko bàyyi ba mu nekk mag. dëgg la ci yow may ndaw ñaan nga yàlla yàlla bàyyi la. nga dem ba nekk mag dëgg la ca suñ borom euh, da moo ñu ko njëkk a dégal waaye seexul xadim yi da ko wax ci tasaw di saxaar mhm. ah, ndaw ñi nan warmaal mag ñi mhm. euh, ndaw euh, mag ñi nan yërëm ndaw ñi mhm. waaye ndaw ñi it nan warmaal mag ñi dëgg ca gëm naa ni li nga xam ne moom laay wax ci jamono ji ñu toll ndaw bu bëggee nekk mag mag ma nekk mag ba yàlla def ko mu nekk mag soo bëggee nekk mag it war nga ko warmaal ndax ëllëg yàlla def la nga nekk mag ca bis boo demee ba nekk mag bu la ko fayet du la neex hmm. ca danoo toll ci réew mi foo xam ne hmm. eh, ndaw ñi dafa mel na danoo perdre waloor hmm. yi nga xam ne moom lan amoon eh, ndax waxtu ne eh, ndaw da daan warmaal mag ndaw da daan suturaal mag ndaw da daan déglu mag ñu toll jamono joo xam ne nag ndaw déglutu mag warmaalutu mag ca liñ def ak àdduna nan xam ne adduna bi dara changé wu fi mhm. bi suuf si doon yonent bi doon ndox mhm. asamaan si yonent bi téemoon asamaan si mhm. ji téemoon yonent bi suuf si téemoon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul asamaan si ko téemoon suuf sam doon ndox si ti sëñ Fallou doon ci téemoon ko euh, di ci dox suuf soo soo fi nekk ak asamaan si ko nekk si lépp lu changé rek ci diggante bi la changé ca ja toll jamono joo xam ne réew yu bari bari na luñ perdre ñun ñu am ay mag yoo xam ne nii sun référence la man damay wax ne toujours yii ñu jàngale ay Carlo nangam ay euh, nangam Wego mm-hmm. nangam Victor Hugo Karl Marx man dama ko dama dama koy dàq parce que man mm-hmm. gëm-gëm bi ma gëm mm-hmm. suñ mag ñi buñ ci defee référence jàngat ci ñoom liñ fi bind ak liñ fi wax jàpp naa ne dutuñu mën a roy kenn ku du ñoom dëgg la ndax bind nan li li li jiitu wax nan ci li ñëwagul kon fii ndaw yi li ma leen di ñaan ñu gëmaat seen bopp gën a delluwaat ci seen i li nga xam ne mooy seen i Euh, euh, gëm-gëm ak seeni pas-pas ndax man kat gisuma ndaw lu ñàkk kers mhm. wala ndaw luy wax lu bon di jëf lu bon ba xëy doon mag jëm fenn loolu moom man gisuguma ko wala ku ko mhm. gis na ma ko wax mhm. nekk naa ndaw di wax lu bon di jëf lu bon ah, ba egg ba nekk mag egg fenn fi man sëñ moo dégguma fenn waaye nag gis naa bis bu set ndaw lu ne ci la mu war a ne di jëf li mu war a jëf di wax la mu war a wax ba xëy e-, egg fenn fi man naam nag jamono ji ñu toll am ko ko gis waaye man gisuma ko hmm. kon li ma mën a gis man koo assuré hmm. mooy ndaw ñi dañ delluwaat ci référence mag ñi ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal hmm. ni mu ni mu doon doxee ak warma yi mu joxoon Serigne Touba mi waajurum di kilifaam di sëriñam waaye joxoon ko it mag ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon euh, jamono ndax nag euh, ñun ñii suñu maam fu ko masaa jëkk gis cër ba mu koy jox benn la euh, ñi nga xam ne bañ na ko ba ku mel ne maam Cheikh Rafal Euh, euh, Baye Cheikh la ko daan woowee. Hmm. mel na ku maam euh, maam Thierno Baye Thierno la ko daan woowee kon yooyu ay wor ma la woon. Hmm. yoo xam ne nii ku mel ne sëñ fàllu mën nañ koo roy ci cër yooyu ak magay wu ma jàpp ne jamono ji suñ bëggee suñ réew mi ñu mën a garder loolu faaw ñu delluwaat ci njàngale yooyu. Hmm. ca bañ a jël ci njàngale yi nga xam ne ñoom danoo jékki-jékki xam ñor xam ñun nag danoo bëgg bëgg jékki-jékki rek xam mooy la tubaab bi di jëfandikoo. ba baat yooyu ñu koy wax fii nga xam ne nangam sa nangam sa kee naan nangam sa nangam sa ca ay jamono boo ma saa wax nangam sa nangam sa rek mag moo dendal dalay pes doon te juru la parce que bëgguñu loolu sax ci gone yi kon tey ji bu demee ba gone yi di ko foyee ñi ko fi indi ak ñi ci dund doon na loo xam ne ak yàq la goo xam ne hmm. kenn xamul fa muy tàmbalee gimiñ bi ko yàlla di bind du wax lu bon a tax mu di ko def yàlla du ko bind ngir muy wax lu baax di def lu baax cër bu ci nekk yowmal xiyaam suñu borom daan laaj lu taxoon ma bind la ak lan nga ci jëf wala lan nga cay wax làmmiñ nag dafa lu yàqu lu nekkee rek làmmiñ ko yàq hmm. ca lépp loo xam ne ni tamit musiba la moo xam muy guerre wala fu mu mën di doon ak yeneen ak yeneen yoo fi gis yu nekke rek ci làmmiñ la génnee hmm. kon làmmiñ dafa doon kër boo xam ne hmm. bu mat a bàyyi xel la kon ndaw ñi nan delluwaat foofu def ci ay njàngat Mm-hmm. xoolaat réew mi ñu bokk muy réew mi Sénégal mm-hmm. mag ñu mel ne mag ñi ñuy màggal mm-hmm. seen jëf lu baax moo taxoon ñu koy màggal ay mag a ngi fi woon nekkoon feek ñoom nekkuñu woon ci loolu fàtte nañ leen bu yàgg waaye ñi nekkoon di jëf lu baax ba léegi si nit ñaa ngi leen di fàttaliku ñuy mhm. dundu internellement la ñuy continuer di dund mhm. ba faaw mhm. waaye ñi doon jëf la neen moom nekkoon na ñoom kenn waxatu leen kon loolu nag roy la boo xam ne war nañ ko roy ci mag ñooñu sëñ bi xanaa ci tënk rek nga fàttali ñu lan mooy war maay dëkk bi nga xamante ne am na ñoo xam ñu ngi jógee fu fu nekk ci réew mi wala ci biti réew ñëw ngir màggal tey ji bés bu sell bi waaw war mooy dëkk bi bis bu set ñu wax ko dëkk bi moom day dëkk boo xam ne Euh, ki fi tëdd muy Seexul Xadim mm-hmm. ak mag ñu baax ñi mm-hmm. nga xam ne àndoon nañ ko moom mm-hmm. tëdd fi euh, war ma ji mooy sax ci ndigalu sëriñ bi ndigalu sëriñ bi nag lépp loo xam ne lislaam tere na ko wala lépp loo xam ne tamit ndigalu sëriñ bi la ci leen fa yéene nekk lépp lu mu tere ñu bàyyi ko loolu nag mooy liñ war a nekk rek fii moom bis la dëkk la boo xam ne euh, li ñu fi war mooy heure buñ fi duggee wala ñu ne fi nan jàppale ci ak jaamu yàlla ci leen war a nekk doonte doonte suñu borom ci màkkaan bu nekk ak fu ne la ko dëggal hmm. waaye nag rawatina bu nekkee fii hmm. kon fii eh, mën na noo wax ne daara la hmm. waaye fii eh, dëkk la boo xam ne nit dana fi defaroo waaye nit dana fi yàqoo ndax am na loo xam ne ku ko fi nar a defit ah yaakaar naa ne fa ngay jëm ak sa mujj du rafet ndax sëñ bi aaral na ko boppam waaye li may sàkku rek mooy waxtu ne ñu mm-hmm. sax ci ndigalu sëriñ bi mm-hmm. lim fiy aaye ak di ko digle it mm-hmm. ak di ko aaye ñu bàyyi ko lim fi digle ñu def ko ci lim fi digle dara génn ci lislaam lim fiy aaye fekk na lislaam aaye ko bu yàgg kon loolu yaakaar naa mooy war may dëkk bi jërëjëf sëñ bi amoon nañu mbégte bu baax a baax doon seq yow waxtaan wu yaatuwul wi waaye am na solo lool sax ndaxte liñ fi yëkkati ciy kàddu moom macha allah xanaa daal ci boo ko euh, nangulee daal am ku ñu yëkkatil dara rek ñu tëjee jotaay bi waaw bisimilah Cheikh mooy falfale tey ku ko neex mu fal ngay fale kii mooy saayibul fadala amal fada ilumalam yaxwi aadun ku dem fa moom xam ne kii mooy saayibul fudala lor dem na xéewal yi baawaan dootul jeex abadan ku sapp sëriñ fallu mbàkke xéewal war la lor dadu la ay la man ada seex fallu fii abadin xayre la man ada tànneef yi xam nañu la sëñ fallu loo wax borom nguur gi dal koy def yaay ku juboo waa axlu diiwaan ya seen booloo ma xam nañu la baytul wilaayati yaa yor fondement ba bu wér sërif nga yaa jiite mboo dem kun ñu wàlluy la amin amin jërëjëf sëñ bi Mbacke Balla ñu amoon mbégte bu baax a baax doon ànd ak yow ci waxtaan wi lépp nag comme ni ngeen ko xamee mbokk yéen ñi ñuy seetaan ci Sénégal 7 euh, dañoo ñëwoon tey jii déplacé wu ñëw seet si kenn ci suñuy sëriñ ngir waxtaan ak moom ci màggal gi ak euh, borom màggal gi itam Euh, di ñaan yàlla rek képp ku fi ñëw rek euh, ngir euh, màggal si yàlla nangul la lépp loo fi ñaan ci daraje yi Cheikhul Khadim donc amoon mbégte bu baax a baax yéen doon suivre jaa ngeen jëf ah, di leen jëfal ñoom ñi nekkoon ci wàllu xarala gi ñu def noonu daal di doxantu demaat ci beneen beneenu kër ah, ànd cek beneenu sëriñ rek mu defal ñu ay waxtaan ci tey ji bés bu sell bi jërë ngeen jëf ñu ànd ndoog yéen wéyal suñu programme ci Sénégal set